boogi barbaru dama la bu yàgg musaala amar ba dem ma jaame jaame jaama jaam musaala amar ba Samba lu dans le milieu épique légui fiñ mu toll France di commander ay vitamines wala ay matériel d'équitation Manela à planète animale c'est jaxlé le dierna. Bipum matériel bu len soxla ci walu équitation vitamine dem len ci planète animale amna ay solution ci lepp lu jëm ci vitamine pour seeni mol bu wara mag wajan buy japp wajan buy nampal. fas bu amul énergie fas bu qu'un en entraînement Manela produit yu bax yu respecte normes internationaux yi lepp am fi planète animale ay produits de substance naturelle Planète Animal adresse mu ngi ci Sacré Cœur 1 sorewul dara ak club football Dakar Sacré Cœur villa numéro 8289 B Dakar Sénégal xoolal Planète Animal yemul foofu de day jaay bépp matériel d'équitation ay collier longe ba ci l'école te xoolal moo xam muus xaj lëg ganaar ba ci xar loo ci soxla am na ci Planète Animal mail nekk Animal Planète sn arobase Facebook ab di Animal Planète sn seen numéro téléphone di 78 128 25 25 ak Planète Animal solution son fil avec Bar. Salam alaikum, de festivités. C'est une émission bien non hard, accéna. C'est une émission de Taibi. De nous faisons des dalal. Qui est pour vous milieu épique? Moi, je suis propriétaire, je suis entraîneur, je suis joueur, je suis amateur. Nous faisons des dalal, les pour. ngeen ci ànd ak seen jigéen Khadija muy am seen chaîne H221 tous les quinze jours salaamaaleykum mbokk tugg si mbokk internet yi H221 seen émission daje ngaw yéma koon laaj ñëwat na ak beneen contexte bu bees tàq dia woore yéen borom fas yi ñen amateur yi ñen borom ñen jockey yi ñen entraîneur yi yëpp ngeen xaar ma fu way nekk na la fa fekk dekk la suñu micro ci émission daje nga woon ci ak 221 lay xewe والجبار مرمزارة مرحبا مجا مجا مجا مجا الرادب ما manja manja manja majame matago matagaram gay sandir jengendo fati khabla en sandir ngendo ndangan basir wet no kebe mere kismak ngendo nergay कृष्ण मर भाॼ बिल قلتا يا نجاي ثالوبي ما مزال يا مرفاد ما ما جاء ما جاء ما جاء قلتا يا نجاي ثالوبي ما مزال يا مرفاد ما ما جاء ما جاء ما جاء ما جاء قلتا يا نجاي ثالوبي man saala faatama ma ñaana boogi barbaruk dana la bu yàggum saala amar faatama ma jaama jaama jaama jaam way safaay maram saala amar faatama ma jaama jaama jaama jaama amar faatama ma njame njame njama caame ma tëggoog ma tëggaaram sandeeri jeeg nga yendoo Fatick xamulaay ma sandeer bu nga yendoo ndangaan Basiir nga yendoo Kébé meere fis mbàkk nga yendoo Ndar géej fi salam du nga tontoo waa dugoolu këmbar bara ñaan bil fii nga yendoo Jal Jóob waaw kii mooy Mama Diop Mama Diop deux ans la daaw dafa yéex a soo gisee ñu ngi ko taxaw bi

waaw ah, moo ne yaay ji côté yaayam moom euh, moom doomu Coro la Coro nekk doomu Payster ak euh, comment dirais-je euh, janax ju weex bi la ko bokkal yaa doomu Adja Jogomaay yaay ji doomu Adja Jogomaay la te Adja Jogomaay moo jur janax ju weex ñoom seen TV ah donc moom ci fi mu bokk waaw fi mu bokk moom wax dëgg na yàlla côté ndey côté baay yëpp te yaay ji aussi raw na waaw donc moom it wane ci yaakaar daal vraiment kii mooy kenn la si man bu Ablaye bu ne laay sa xel dem si Ayiba Jaxate mu toog nii Ayiba kii dafa fas doom la muy kenn si man mu ngi def degré sang bi ak kan la bokkal. waaw na bokkal maa ngi lay nuyu bu baax di la fay di la sant di la gërëm. kii de trois quarts la de ring mooy bàyyam waaw Matar Mbengue moo ñu ko jox daaw yaay ji Kaba la tudd demi-cent la ay bokkam nag euh, am bëreeguñu yu daw kii am Mor Baaw am na ci benn bu mbokkal bàyyi euh, Ndiame am na benn bu mbokkal bàyyi daanaka ay mbokk yëpp ay khalala la bon wala ñoo jàkkaarloo ne ñoo bokk bay waaw xam naa nag ay ñoom nag 2020 li nga nekk fi Kër Masamba Kër Masamba Kouré Diop yàlla na ko yàlla xaare àjjana ci Souleymane tey fas bu ak ngeen eh, li li nga wax am na solo waaw ah ñoo ngi fii Kër Souleymane comme ñun amaguñu écrit wax dëgg yàlla ma ñëw fi ak sama fas ak sama njaboot mu dalal ma yaatal ma vraiment même amul sama sax autonome bi ma am fii sax du ma mënu ma am bu gën bi bi ma nekkee nii parce que dara empêché wu ma fas yi lépp moo ko yor bu waree vitamine moo koy def bu waree piqûre moo koy def man lijjanti wu ma ci dara lépp ti moom la ne ci loxoom la ne xam nga loolu aussi dafa dafa xaw a doy waar tuuti mais nag doomu aadama moom li mooy li mu laax rek da ngay bàyyi sa bopp yàlla rek am na yu bëri yoo xam ne nit bu gëmee yàlla rek soo gëmee ne li nga war a am da nga koy am wala li nga def da koy def da ak dal ànd ak doylu Wow, di ci des nag mooy ah ñoo ngi nii rek di yaakaar képp koo xam ne kii yaa ngi yëngu ci dara yàlla bu ci yàlla tas sa yaakaar la nga ca séentu yàlla na la yàlla may lu ëpp sa njort man nag kii du sama première fas mas naa jënde fas tudde ko Sekmor eh, yàlla def la ma ci bëggoon aw ma ko ma jaay ko ñu delluwaat toogaat ba quelques années yàlla maye ñu fas yi daaw ànd ak sama njaboot kii sama doom la chaque jour mi ngi fi ak keroog démb sama soxna sama doomu jigéen sama ñëpp a ngi fi ci fas wi xam nga loolu fas rek moo ko man te man it ma dara ci àdduna loolu li ma bëgg samay njaboot bëgg li ma ko xam nga man ma toog fi samay njaboot wër ma fii heure bi démb ñu ngi ma wër fii teg ay sees ni ataaya jigéen ak góor ak ñëpp ci fas wi xam nga loolu fas ko da nga war a sant yàlla ma ci sant yàlla nag bu baax a baax a baax a baax a baax parce que nag borom fekkoo ko fi xam naa ne moom boo dem sax daaneel la parce que day liggéey guddi yaa baax merci beaucoup way bokk xam beneen produit mën nañu xam ki benn produit la. waaw ki euh yaaji doomu soleil la euh doomu soleil ak euh, Las Mango mom mu nekk doomu Pléiades euh, di sept huitième donc boy seet ci giru soleil mom bokk na ci li gëna a présentement ci Sénégal lu la ci soleil. Euh, donc euh, mom 14 mois ni xamna naa ni déwoon lay matal mais ci fin ay juin quoi mais bon ñu ngi koy sax li ngi commencé di doxal là, ndank ci génétique. génétique parce que génétiquement. Mhm. Euh, composé dafa donc na ñu ko génétique. <laughs> yaa

moom mi ngi ci daal moom it am na bu baax ah, parce que yoon waaw kii mooy yaayu maman Diop moom laa wax mooy doom Paye Serre ak euh, mooy yaayam mool bii mu am nii ring la euh, moom it muy sept huitième euh, moom it mool bi am na ci yaakaar bu baax ah, parce que déjà nii rek booy ci. Ah, waa giir gi mu bokk moom vraiment am nañ ci yaakaar te aussi taay bi baax na trop macha allah waaw 2026 la waaw. kii mooy Adja Dior Adja euh, yaay ji moo nekk euh, Las Mango moom mu nekk doomu soleil trois quarts de soleil la donc euh, mool bi mu jur nii doomu Banada la Banada di doomu Elusive City.

donc moo euh, tax Soleil City lay tudd waaw kii moom moom la wax na Yaya Diané ah yaakaar naa jument bi moom ñu bari xam nañ ko ñu bari xam nañ doomam aussi euh, mu mu mu muy faral di jur ay ndaanaan aussi doomam bi mu mujjee am mooy kiran bi nekkoon ci Umar Bao euh, mool bi aussi mi ngi ko jur ak banadaa donc muy mool bu ñu am yaakaar lool aussi. donc euh, euh, ñoo ñoo Gisendo, gisandoo ah mool bi rafetna na yaay aussi, aussi euh, jument bu makla mais elle se porte bien aussi am nañ ci yakar daal vraiment. mom Nogay lu euh Nogay xam nga ko mais moom doomu Vanis la waaw doomu Vanis la. ah mol ah, bi nak amagul tour waaw amagul tur <laughs> ah, non non sawar jane deux la ko tuddee. Ah, mais voilà jine jane deux lay doon c'est normal parce que comme jane comme jane dafa daanu. Wow, qui koy tuddewaat Diané Diané <laughs> 2. waaw de la di Nogay 3 Amina Brodo euh, comment dirais-je yaayam ak Mestra, Maestra yaay du euh, di euh, aussi avec Banada donc mon mon bi quinze seizième de sang la euh mo ci vraiment euh, yakar ni mën nañu bi waaw muy non mom la sama jawar la. am nga ci droit. Abdou ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay. ñu gis fi nga ne sama saabu ngay xalé jox la sama nga nekk si fas bi. waaw ah fii kat moom ku ko gis moom xam ne fii moom liggéey bi nekkul liggéey bi yomb waaye ñu ngi góorlu di def luñ man ak luñ manul ndax Souleymane mii di boroom kër gi nekkul ku naqaree nekkal quoi amul problème yenn saa yi nag mu yuuxu dal sa kaw waaye après boo xalaatee di nga xam ne li mu wax moo ne si dëkk kon nag fii neexut a naqariwut a nekk quoi waaw moo tax ñu ngi góorgóorlu waaw. ñu gis bii mool deux ans la yéex a matal am nga trois ans bu daw ñaari trois ans benn C ak trois di nan nan nan nga fas yéene defal daaw gars yi. ah gars yi moom <laughs> li ma leen xamal daal leen nañ liggéey daal waaw. yàlla yaa ngi. ñu ngi liggéey moom waaw ñu ngi liggéey moom ñu ngi si kawam waaw ok am merci waaw. mbokk as 221 te ñoo ngi fi écrit Samba Kura wax Samba Kodio wax Souleymane moom lañ toogoon nii Souleymane ñu bàyyi nga nuyu ak Ondré ko as 221 yi. Ah, waaw as 221 maa ngi leen di ziar di leen jaajëfal. Eh, di eh, waaye balaa may eggali nuyoo bi. Eh, dama koy gërëmee sama. wayjur bu góor. dama koy gërëmee sama wayjur bu góor. mi nga xamante ni moo ma tette ci fas. Mm-hmm. ba mu mën tey tooge fii cëram. di ñaan yàlla yàlla xaare ko àjjana. amiin amiin suuf sedd ci kawam. Mhm. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa yaakaar naa ni yéen ñëpp euh, ràññee ngeen ko. Mhm. bëggoon ngeen ko te aussi manqué na leen. trop kon dañuy ñaanal yàlla. Mhm. yaa ko yàlla yërëm. Euh, yaa bu ko yàlla lijjanti. jëf ju fi def ci kaw suuf bu baax. Euh, Yannoko mm-hmm. Yannoko et que man tamit téway bi mu fi téwal mm-hmm. famille bi yëpp laa fi ndax ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg. ci jot. Mm-hmm. pour dund fas yi. Les ma continuer aussi di leen H221. Euh, di xam ndax promotion course li ngeen liggéey Euh, su ko amoon yeneen euh, comment dirais-je. yeneen parrainage gi yeneen yeneen yeneen ñu mel ni yéen. di def lu mel nii. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, course dina gën a dina gën a kii. Mm-hmm. dina gën a développé. Souleymane ñu gis ba tey nga comme li nga ko waxee mu jóo puso mu réer tey équipe yi bëgg dëggan tanoor yaa ko téye te flambeau est-ce que yomb naa. non yow Fass ñun ñëpp xam nañ ñu yombul. li la ci bàyyi cër la ak jom. beneen bi bu ñu waxee cër ak jom. Mhm. passion am na ci. Mhm. man li tax mu yomb si man bu dee man mun naa wax sama sama côté. Mhm. c' que au départ je éleveur. éleveur waaw éleveur de mouton. donc war naa mun xam yoon loolu rek moo ma yombaloon. tey ñu gis ko comme ni nga waxee yombul nga téye ko te nga am lu si bokk lu ñu bari ñoo leen si seen mun nañ xam amul boobu nga am wala papa moo moo def loolu si waaw mooy li ma rek papa dina def li mu war def ci yow. moy mhm. ànd ak yow ngeen dem ci fas ànd ak mhm. yow ngeen dem ci course. Mhm. lolou def nako mais mun na wax ni amour bi ma ci am tay aw moko ci won mais tay gën na ma yomb bi nga xamanteni xamna ni mon je suis passionné de l'élevage donc moo mu yombal li ma lay wax ni donc mo indi que ni man mission bi ma ci am. mooy tey jii li mu rawul woon ci ci ci course. man mhm. mu ñëw raw ko. Mhm. loolu mooy sa. waaye yaa ngi si yoon yàlla bu la yàlla defal dañ la yàlla dañ la yàlla defal la jàmm parce que yaa ngi si yoon bi ku gis fas yi. tey daaw mën nañu xam daaw ñaata fas nga dawal. waaw daaw dawal na ñaari fas. Hmm? Mhm. benn benn benn bu deux ans. Hmm? ak benn benn bu trois ans. donc mu nekkoon Mama Diop. ak Mansour Fall. Mama Diop ak Mansour Fall. donc mooy ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari fas yi ma dawal daaw. Mm-hmm. ah su ma waxee su ma xoolee tey jii. Mm-hmm. Um, euh, su ma defee rapport liggéey daaw. Mm-hmm. mun naa wax ni je suis satisfait. parce que am naa ci ay fas yoo xamante ni gars yi ràññee nañu seen mun daw. am nañ ci yaakaar pour la nouvelle saison bi war a ñëw incha allah. ñu gis daaw ñu doon liggéey fas yi daaw est-ce que ba ren ñoo fi nekkaat ba léegi. ñu doon liggéey daaw c'est vrai que ni gars yi dañuy bouger hein mhm. euh, ñu fi doon liggéey daaw newuñu fi ren. Mhm. mais seen liggéey feeñ na fi. Mhm. parce que ñoo liggéey fas yi. ah vraiment ba au passage mun naa liggéey mun naa lim Sadio. Sadio ndax tey jii Maman Diop. li mu ci liggéey ak li mu ci sonn. Euh, feeñ na ci moom. donc du ma sëkk jëf. dëgg la bien vrai que nekku fi. mais cëram reconnaître naa ni liggéey na ci. am na am na liggéey quoi si li maama tey comme deux kon kon deux mën nañu xam ñaar fas nga mën a dawal waaw déwén ñoom ñu daw daw mhm. aussi euh, deux ans a génétique. mais fin saison lay daw. il mhm. 14 mois mhm. donc au mois de <clears throat> juin les matal. mais donc mun ñaari ñaari ñaari Il là aussi élevage bi nga a concentré mais comme aussi euh, a jument de qualité. Mhm. Euh, ay ay poulain yoo xam ne mën na def résultat. Mhm. te yàlla am na lu ma may comme li ma wax nii. Mhm. mooy tey jii nit ñi mën nañ ma dégg nii ci fas. waaw te du ñu xam li ma mën ci fas. te li ma mën ci fas liggéeyu éleveur la. man je suis éleveur au départ. donc mun naa xam fas. nan lañ koy defee say mu jaar yoon. nan lañ koy préparer ci biiru ndeyam. nan lañ koy nan bu juddoo lan mooy baax ci moom. ba ni muy màggee. ba ni ñu koy defee fasu course. loolu loolu mun mun naa wax ni xam naa ko te mun naa ko. Mhm. ndax ragal naa ni euh, def naa ci résultat yoo xamante ni. Mhm. Euh, di ngeen ko gën a gis incha allah. dans les années à venir. dëgg la comme ni nga ko gis nañ parce que gis nañ produit yi macha allah kenn duñu ko wax bu gars yi si dañ ko xam. ñu gis ni yow sa papa fu mu tegoon foofu nga des tànk. Mhm. dama gis ne sa papa doon taf seen bopp. nu mu ngi jëlaat tafaat sa bopp si ñooñu. lu waral loolu. waaw loolu c'est tout à fait normal ñoom. Euh, Euh, ñoom ñoo ma njëkk yombalal loolu. parce que ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo toog. voilà man ma ni que nii la doon demee nii sa papa nii lañ doon toogee. Mhm. ay man tamit ma gis ni aussi tamit ñu neex a toogandoon la ñu neex a àndal la ñu. moo tax ma ànd ak ñoom. daa mel ni ko xam Samba Koura Diop dëgg dëgg dëgg bu la gisee léegi Samba Koura xam nga <laughs> parce que même doxin bi la parce que ki ma grand kii Thiam mu tudd eh. Ousmane Thiam. parce que nee na ma <clears throat> dem naa fa. Mm. mu ne ma sa papa lu doon def ngay def dafa la ngay ñëw yaa xale yi lekkandoo. Mm. yéen a jëndandoo même yow même même même yoon boobu même yoon ma nga jël quoi. waaw ah, loolu boo li nga wax yëpp mooy wayef. ci biir wayef la nekk. Mhm. donc bu dee moom taggat nañ ci loolu. Mhm. loolu la ñuy ñaan yàlla. Mhm. donc euh, bu ñu waxee style bi ak jëfin bi. ak mayef ba dégg ak mayef fas yi. waaw ba tey seen loolu loolu mooy li wax mooy li wax rek. loolu loolu ci nit la. ci yar la. donc comme loolu aussi même. loolu daf daf li tax mu yomb ñu mooy xëy yar gi la. Mm. mais dañu ñaan yàlla yaa ngi koy gën a mën. Mm-hmm. donc loolu loolu loolu loolu ñu ñaan rek. Mm-hmm. mais lu baax la dañ koy jéem a roy rek. ñu gis fi ay plein 2026. allah mm-hmm. lan lañ ciy xaar. waa ñii moom li nga ciy xaar. Euh, li nga ciy xaar. mooy fi may duggee ci course dëggantaan. ndax ragal naa incha allah kon ku lay xaar na la xaar deux mille vingt six deux mille vingt six xamul ndax. parce que am na liggéey boo xamante ni amoon na retard bu bari. boo xamante ni amoon naa fi ay poulain yoo xamante ni. ay deux mille vingt quatre lañu mais yu yu déjà am na yu fi génn bu dem. boo xamante ni jotu fi nekk. boo xamante ni ay mauvaise naissance lañu. mais tey jii mun naa am tey jii ay poulain yoo xamante ni ay bonne naissance lañu. yoo xamante ni su ñoom su ñu waree ñëw. dinañ toll ni fas yi incha allah.

limay may li may li may li ak limay limay jël style bi yépp mhm. amna lo xamanteni man xeyna na bab don nako def. mais mhm. xamna naa du ma ko def. mooy saa dinaa daw dina rawante. waaw bëgg naa jaay aussi. parce que fait du business. parce que investissement bi investissement bala nga def ko. Uh-huh. foo mom retour par exemple ni man xamna naa tey jii. Mhm. yan jument. moom laay jaay. yan poulain lay jaay. ak yan poulain lay liggéey. ça veut dire aussi. maanaam da ngay fexe ba am sa base élevage quoi. loolu mooy élevage parce que mooy li ma expliqué tey jii ci xar. Mhm. man am naa ay am naa ay brebis ni. Mhm. mën nañ jar million mais du ma leen jaay su ma leen ba jaayee mooy yàq naa suma liggéey. Mhm. léegi loolu éleveur xar mooy xam loolu bu ko defee ci fas di nga gis beneen beneen xeetu élevage. parce que je donne un exemple. imaginez tey jii daara daara mënoo fa gis sept huitième mënoo fa gis trois quarts raar na nga gis trois quarts parce que ñoom dañuy liggéey bu mhm. ñu liggéey après jaay Dakar mhm. sama mbokk waa Louga la même chose <laughs> ay jula leen dégg de <laughs> ak ñeneen ci biir Thiès ah. donc du ma ne natt boobu duma ma dal mhm. mun na ma dal bien sûr mais dama bëgg dëgër bi nga xamante ni man aussi dinaa mun am loo xamante ni tey jii juddu na nekk sept huitième ñu mun ko jaay bu ma amee rakam. Mhm. je préfère jaay rakam. moom mu téye ko tey jii liggéey ak moom. Souleymane ni ma la déggee comme yow ni nga amee base élevage. Hmm. comme tey jii kon 2000 nañu xaar benn élevage bees bu Souleymane la war a indi si tous beneen tous Souleymane ko am na tous bu mu war a indi si course hmm. lu gars yi xamul woon xam man la bëgg a touche comme mu ñëw ci mu ñëw ci kii. Mhm. mooy yokk degré de sang bi bu jaar yoon. jaaroon ji mun mun naa taxaw. si ma est ce ñu yokkee degré de sang entre du am pompe parce ñëpp même traitement la ñuy traité fas bi. loolu loolu waxu waxu waxu waxu la rek. Mhm. wax bi xew la nii rek. Mhm. bokk ñu ni ñuy liggéeyee fas yee ñoo gën a fragile xanaa kon du ñu bu fas yooyu ñëwee.

boo xoolee ci benn programme da ngay gis benn exemple programme boo xamante ne benn sept huitième nga ciy gis. wala benn quinze seizième. trois quarts yi ñooy ñooy sat sept huitième yi. waaw boo xoolee degré cent yi boo dañ fay deful dara waaw boo xoolee fi dara raw nañ fi am na degré cent ku mel ni Ber raw na. Laareen Sawa raw na Alpha Ndiaye raw na. waaw li ñu raw comme ñu ñu trois quarts yi cantonné ñoom defuñu fekk luñ si loolu. bokkal man nekkaguma ci loolu. trois quarts moo gë man. yow gëmoo loolu waaw. déjà demi cent.

ba leneen nag bi si fekk après nag su ma egsee ci yéen li ngeen gëm ni trois quarts moom. non man li gars yi gëm. su ma gisee loolu après ma gëm li ngeen wax. <laughs> dëgg la ba tey ah, ñoo ngi suñu émission Tontu les Écrits yàlla koo xam ne wax dëgg yàlla lu ñu koy waxee mu jël pousse mu réer Souleymane ñu gis xale yi dugg si course bi macha allah sa génération yu bëri ànd même mën naa fay lim ñu bëree bëri te course yi gain yi bëriwul noonu lan moo leen si bàyyi

ki tok gisul. Mhm. du bëgg. deug la. Mhm. ki andul ak domam dem ci fas bi. yop yaay dom ne ko papa jënd fas. Mhm. du ko motiver motiver artiste mu jënd fas. ah. donc ouverture bobu tank amul. nit ñi amul ñi kat yi duñu bari. ah. te jaay tamit dañ donc la meilleure solution c'est de c'est de euh, promouvoir les courses euh, les courses. ñu bul gars yi quoi. non mooy mhm. quitte à ce que ñu organiser des foires. foires. meilleur jument meilleur étalon meilleur poulain. hein donc loolu loolu mais loolu mooy xar yi li tax ñu réussir amul secret. xar dañuy jaray 50 millions mom te fa jaragu 50 millions. mais dina fa jar 50 millions xam nga tax mu jar 50 millions. Mhm. xam nga kañ lay jar 50 millions. Mhm. tay yi ben promoteur bu ñëwee tey. mu dawal course yow nga gagné. Mhm. bu deux millions yu bokk ak santage yu gars yi. Mhm. dootoo jaay fas bi tey jii ay treize millions di nga ko jaay cinquante. Mhm. et que gain bi bu yokkoo rek sous peu de temps gain bi bu yokkoo rek après fas day am xaalis. loolu ça veut dire que même bu fekkente ni ñi war a jënd jënduñu sax. boo rawee di nga am dara. waaw comme man boo xoolee comme léegi si élevage bi nga yëngatu xar yi. boo xoolee xar yi parce que ñoo dundal seen fas yi moom. dañ leen di yor. fayaare ku yor. ba pare di

soo nekkee ci cap boobu nit ñi di xam ne tey jii yaa ngi yaa ngi liggéey yaa ngi am qualité bu baax. Mhm. mais ku bëgg jënd tey jii bu fekkente ne élevage kese ngay def dina ñëw jënd si yow. Mhm. loolu la te bu boobaa fas yi dinañ mën jënd dundal dundal seen bopp. léegi yow CNG pes pes papa gaañoon léegi sa dis yaa ngi commencé yaa ngi ñëw kus que nga ñëw làqatu dañ lay gis am sa sa nga nekk sa coin. Uh-huh. macha allah gis nga CNG ni muy doxee Souleymane. Uh-huh. daaw jéeg ñoo ngi dawal vingt et quelques journée uh-huh. daaw 24 ren 17. Mhm. su waxee boobu waaw léegi xam nga man ci boor boobu comme man damay déglu rek. Mhm. aw ma buntu ba ma mën a waxee. Mhm. occasion la bu nga xamante ne tey jii mën naa ci wax sama xalaat. Euh, bon ñëpp comme jàpp na gis nañ ni. Euh, que muy coursier wala muy amateur. bu yi néewee neexul ci xol. donc ñun course rek la ñu donc mënoo préparer sa fas. sept mois ak fas yu yéex ak fas yu yéex a matal. voilà ak loolu yëpp. Mhm. dawal di sept journée mu jeex. Mhm. loolu tamit. Mhm. wax dëgg na yàlla nekk na lu metti eh, su may wax ni tey jii eh, lu jëm ci CNG bi wala comme ni ma ko laajee rek. la moo ci sama xalaat ci loolu. Eh, mooy li ma ci bëgg wax encore bon après ñu dagg quoi. Ah. waaw. waaw léegi ñu gisoon papa newoon na CNG bi amul dox dox bu mucc ay ba ñu jël alalam di ko ci def macha allah li yàgg ko see def ah ñëpp fekk nañ ko est-ce la encore. ok léegi euh, damay ñëw mën naa ko wax nii sax après nga noo ko daggee. Ah? waaw noo ko kiiyee. Mhm. xam man fi mu woon waxee mooy gis naa par exemple gars yi di comme moment bi ñu waxee nii euh, LONASE dafa bëgg ñëw. Mhm. partenaire ak CNG. voilà. Mhm. on fait des tours vers les écuries. Mhm. pour xool pour tester xool marché bi nan la mën démé demee pour xool. Mhm. fekk dégg na gars yi gars yi ku nek di wax nan euh jarul ñu dem bu ñuy seeti. dañ def ni mais imaginez ben affaire. man je préfère li am le ëpp solo. mooy ñu 2 yi nga xamante mom lañu wax. ñu ñafe ci 2 yi. parce que mu te ki lay jox 2 pour après mëno ko laaj tay ji ni ko sama course yi ngay yi ngay yi ngay parier jox ma ci xaalis aussi. donc munoo xeex ñaari mbir. Mm-hmm. jox ma 2 pour cent wala tey jii course bi nga dawal jox ma ci dara. Mm-hmm. mais su su ñoom suñu muusee dañ lay jox liñ ci liñ la liñ la mën nga li nga mën gagné. Mm-hmm. nga fàtte 2 pour cent alors que soo continuer nga di focus si 2 pour cent yi nga war am. di nga jot lu ëpp loolu et que moom nga bàyyi ko bu gagné ci yow tamit bénéfice bi muy am si ngay am 2 pour cent. donc da nit ki booy booy xeex wala li am looy bëgg. day am benn gis-gis. nga xam lan nga bëgg. nga jëm ci loolu. dégg Euh, li jëm ci li jëm ci CNG bi. Mm-hmm. Euh, su doon sama sago aussi ñu ñu ñu xoolaat nan lay gën a baax na lay gën a baaxee nan lay nan lay nan lay nan lay nan lay nan la xaalis bi di bare. parce que man mm-hmm. xaalis bi su baree rek. Mm-hmm. filière bi dina dox. loolu la. dëgg la yi na gain bi bare. gain bi su baree rek rek nañu problème yëpp. waaw parce que boo xoolee CNG euh, Souleymane ñett yi war a doxal bépp association dañ koo soxla muy communication muy marketing muy sponsor moom problème boobu la ñu sponsoring ak marketing ak euh, information soo xoolee ku si lépp dégg naa lay nekk tey est-ce que ñu wax si Souleymane mu am tous mu war a mu indi bii CNG bu ko gaay tàllalee loxo. léegi moo wax la beneen affaire. Mm-hmm. li jiitu li nga may wax nii. Mm-hmm. man damay wax propriétaires yi seen bopp. Mm-hmm. Euh, ñoom gis naa lépp lu ñuy kaas. lépp lu ñuy wax ci réseaux sociaux yi lañ koy wax. H221 ngay dégg kenn mu wax. keneen wax keneen wax. mais ñi nek H221 xalat rek dañu am amul kenn ku ci mëne jog dem séti monsieur le ministre. mais tey jii war na am association nationale. Mhm. des éleveurs boo xamante ne bu ñu réunir bu ñu bindee lettre. Mhm. ñu ñu ñu tontu leen. Mhm. parce que il faut que ça soit formel. mënoo ni tey jii man man bi ma dem tey en tant que propriétaire tey jii am chance tey jii ma woo telle personne pour des informations. mais tey jii tey jii même tey jii bu jaaroon yoon ben ben élément association bi être par exemple représentant ah. CNG mhm. les informations donc au jour le jour mhm. donc ça veut dire que les propriétaires si vous voulez, deful mhm. association unique pour ñu mën dara Madame, si je say wax tant que Bolo, nous ñu bëgg vous non bolo, c'est sax façon Mhm. c'est pas booloo nekk am jàmm mhm. booloo bi mooy nga am une association boo xamante ni soo bindee ñu mën la répondre sooy casse association bi quand vous boo xam foofu ñu amee lu ñu war wax on se réunisse mhm. ñu xam lan la ñuy wax ñu wax ko tëral loolu dem ver ci loolu loolu ñu boo waxee nañ lay déglu mais tey yow boo toogee fii nga ni ah Saxiir de war na yor kii ni ah Omar de war na yor. kii ni ah kii def na nii. Mhm. Mhm. alors ñëpp dañ koy dégg ku ne wax sa wax après du am du am finalité. mais mbooloo boobu bu ñu dajaloowul. Mhm. waxtaan bi nan la ñuy def. dëgg naa du am solution bi. ba tey ah. ñoo ngi si tuddee si kii Togo Souleymane nekk fi Ikidi Iba Dëggan lu mu ko wax dégg ngeen ko lu ma wax wax yu am solo la lu kenn man ñaar ko daa fexee booloo nekk benn di xëccandoo di dóorandoo loolu la la Souleymane ba tey ñu gis ba tey CNG duñ si jóg parce que pour si defaral. tey bu Souleymane senje talon loxo Souleymane est-ce que am nga tous bo war mu indi. wa comme li yalla man ci course yi. Mhm. euh comme ni ngi koy waxee rek ni damay làqatu. man sama jenn bu ne dama bëgg mu am luma ma mhm. ci limu mën. Mhm. wala ci limu nek ma ngi ci bay war bo xamanteni tay bo ñewé bo né mu ma mo mën la won juma wala mën won la étalon wan la fasu course. def ci ben pa bo xamanteni di nga ni ah. mom jambar Mm-hmm. su ma defee loolu ba pare mm-hmm. mu am beneen étape bu nga xamante ni mm-hmm. ah war naa ci war mën bay sama waar bu boobaa mun naa dem ma ni bëgg naa wala ku ne kaay mën la ayoo daaw ñu ngi dawal 17 journée ren boo xoolee mandat CNG bi janvier lay jeex kon am na yaakaar ñu ubbi ko si balaa décembre wala octobre sama xalaat bu gàtt te loolu loo ko xalaatee ah moom xam nga coursier moom moom du toutes les moom buñ nee teel a ibbi moom daf ciy kontaan Euh, beneen bi aussi euh, wax ji wax ji mooy. Mhm. ba léegi ñun taxawaguñu fenn loo xamante ni mun na tax nit ñëpp kontaan. Mhm. te ji ko ma wax ko ma bañ ko wax. Mhm. am na ñoo xamante ni ñu ngi naan ah janvier bu ñu ibbee est-ce que tey jii dinañ am li amoon. wala dinañ am lu yees li ñu amoon. Mhm. donc ba léegi am na des choses à régler. Mhm. et que il est temps que ñu régler lépp. Mhm. une bonne fois. mooy fii ko si tëjee quoi. waaw fii ko si tëjee. kenn ku ne xam fa nga féetee moo gën ñu parce que lu ci lu ci gën a tardé ñun ñëpp amul kenn ku ci ku ci ñun ñëpp ñooy perte. amul kenn ku ci gagné. donc ñu xaar mu mu naaj wala mu teel. il est temps que ñu ñu defaraat kii ñu defaraat euh, lépp benn yoon quoi ku ne xam fooy féetee. Souleymane CNG bii tey ji bu la waxoon loo si yokk ak loo si wàññi. man daal gain yi na yokk rek mooy sama problème. loo si man su fekkee ne man lu gain bi su yokkoo rek. Hmm. su yokkoo rek problème yëpp rek hmm. waaw. si man man nañu taxaw si entraîneur tuuti. parce ya yaa yàggoo si course bi tool normal yàgg nga si ñëw def la nga fi entraîneur. Hmm. entraîneur avancement tapas borom bàyyi dem. loolu est ce que encore borom fas yi amuñu part de responsabilité. loolu borom part de responsabilité xam nga kan laa wax. CNG moo war couvrir par exemple propriétaire ça veut dire que ni engagement jaar CNG. tey jii ba mu wóor ne tey jii bu nit génnee fenn war a dem feneen ah. Mhm. CNG ci boppam ne na la fii nga qualifié mënoo dem fale. waaw non bu bu jógee Souleymane day dem si Thié Diop déggul ma la bu dem mënul dem ci Thié Diop parce que bu demee ci Thié Diop du fa liggéey parce que du wala que ça soit joueur ou entraîneur du fa liggéey parce que bu dee CNG moo la coiffé moo la mm-hmm. protégé mm-hmm. contrat bi day ji mu am boo xoolee contrat moral ngeen ngeen signé souvent waaw xam nga boo ma laajee ni moo laajee luy sama xalaat waaw mooy ni bu fekkee dafa formel ça veut dire que ni CNG bu nee tey jii bépp engagement boo war a am mm-hmm. tey jii day jaar CNG ah day jaar CNG. Mhm. comme sax supposons sax xaalis bi jaar CNG. Mhm. mën na si jël sax benn pourcentage. Mhm. jockey bu fi nekk même bu fekkente ni dafa bàyyi ci man dem ci yow du war. dëgg naa dëgg. dëgg loolu dafay jeex. loolu solution la. ça veut dire que amul kenn ku ñu xamante ne mooy mooy mooy nekk mooy nekk témoin. à part les avocats. te avocat yi li muy réglé mooy jël xaalis bi nga delloo xaalis bi. mais par exemple li nga xam mooy yàq liggéey bi. avocat mënu ko régler sëñ ma sànq ma dégg say biir wax nga ngaa bëgg sa papa defoon fi nga def ko fi hmm. mooy raw grand Sénégal hmm. raw renaissance raw grand prix mag yi hmm. fas yi nga am nii te sa papa boo xoolee manqué empreinte de course te yaa ngi si yoon yéen yàlla fa la cat lan la ñuy xaar waaw ngeen ngeen ngeen gis coursier bu mag nag parce que waa li nga bàyyi làqatu bi non xam nga jëfuñu ah, moom ma <laughs> ñëw toog quoi tey xalaat yi xam nga tey di nga génne tey mhm. euh, li ma li ma génne tey mhm. euh, jaadu na boo amee ba liggéey ba am foo toll mhm. jaadu na nga war a si liggéey mais soo amul loo war a loo war a wane jarul génn da ngay génn génn pour génn donc man noonu laay fonctionné donc génn bi jaadu na parce que yor na produit boo xamante ni war na nit ñi war nañ ko mën gis donc même su fekkente ni tey jii yegseeguma si course foofu mais avenir bi mu ngi quoi. mi ngi ci yoon. Hmm. kon ñu xaar la. bu baax la nga mën a wax si as 221. non yéen moom mention spéciale. Hmm. xam nga dama ko wax ci ci départ bi. Hmm. mun naa ko waxaat léegi. yéen vitesse bi ngeen di yóbbu affaire yi. man maa ko mën a xam. du ma ne ñeneen ñi xamuñu ko. Mhm. man toujours dama leen di comparer tey jii ak ñi nekk ci xar. Mhm. laadum du monde laadum conseil. Mhm. ah kii euh, kii euh, kii euh, kii élevage pour tous. leeral élevage. ñun ñëpp gars yi. ni ñuy liggéey tey jii li ngeen def nii ak man. comme ni wax ni man amoon naa ci yéene. mu nekk ci beneen niveau. boo xamante ni. ñoom ñëpp dañ bëgg def lu mel ni man li ma li émission bu mel noonu. Mhm. mais damay rabattre yéen si seen bëgg-bëgg. Mhm. pour yombalal leen li ngeen bëgg. Mhm. mais tey jii amaana buñ ko defoon. ñëpp di ko gis. mu régulier dina gën a bare tey ji ñuy dugg ci fas. yéen liggéey bi ngeen ci liggéey yéen ñuy jox bunt bu nga xamante ni man mun naa la wax ni avant may ñëw course émission yi tout le temps dama doon seetaan course sama kër. te lépp laay gis léegi jamono bii. même boo seetaanee tey jii H221 euh, li ngay gis sax doo gis ci course bi. Mm-hmm. di nga gis départ yi di nga gis box yi di nga gis lépp. Mm-hmm. et que ma leen di ñaanal mooy yal na leen yàlla yokk. Mm-hmm. yal na leen yàlla lafal cat. Euh, gën a barkeel liggéey bi. amiin yéen seen contribution jamono bii ci élevage bi. tax na tey jii euh, information yëpp ñu koy am. yoo xamante ni. en tant que propriétaire da nga waroon toog jot demmel yoo xamante ni mooy tax nga xam li xew la man mm-hmm. mm-hmm. information bu mu mën am mm-hmm. tey jii c'est grâce à vous donc mënu ko am feneen xanaa ma jël sama téléphone am lu ma jaaxal ma laaj ko ma laajtee su ma toogee dinaa gis te yéen loolu ngeen ñu defal defal ngeen ko seen bopp ñëpp ngeen ko defal mot de la fin ah di nga di nga nuyu xam naa nu <laughs> non mot eh, mooy maa ngi leen di gërëm euh, di ñaan yàlla yàlla gën leen barkeelal liggéey amiin Euh, di dellu aussi di ñaanal sama wayjur amiin yàlla yërëm ko mm-hmm. xaare ko àjjana amiin amiin euh, njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci loxo yàlla teg ci loxo mm-hmm. euh, tey jii tamit comme li ma la waxoon départ mm-hmm. teew bi mu fi teew su may rak laa ci teewaaleel parce que sàmm kura la et na doxal kursi yi parce ñi si yaakaar bare na et dañuy wax sant dañuy sant rek. Mm-hmm. yal na yàlla yombalal. diw ah. asel la. <laughs> waaw kooku moo doon Souleymane moom la Souleymane moo laa toogaloon noonu Souleymane moo toog noonu wax dëgg yàlla doomu Samba Kouré Diop naa mu jëw pousse mu réew mi ànd suma caméraman yaat ma ànd ak Pape Malick depuis Tëngéej wax dëgg yàlla mu jógee ba Ndar ko nag yomb jógee ba Ndar la jógee ñëw pour def émission bi ñun fii ci di wax rek ñun jeexal mu ngi tudd nuyu suñu programme Malick depuis France di nuyu Abdoulaye Ndoye Pape Samba suñu sëfa nga am fatigable di nuyu euh, Gora Thiam Abdoulahat di nuyu Maam Ngañ Daliabe di nuyu ñëpp di nuyu Ba Pof sa Saxi Thiam di nuyu Ango Omar Bawo Junior di ñëpp suma rakk yi nekk France yëpp maa ngi nuyu Ousseyn Ndiaye du ma mukk te du ma nuyu Ousseyn Ndiaye wax dëgg yàlla non waaw waaw jërëjëf mi ko jërëjëf mi ko Ousseyn waaw Ousseyn waaw waaw xam nga man dama doon xaar aussi. man nee naa benn benn benn si parce que benn supporter fidèle la am. léegi kaay ma ñëw foofu. Mhm. foofu man maay man maay wax. li tax mhm. li tax may wax. waaw mooy euh, dama ni xam nga supporter. Mhm. moom fu am luy raw rek. lay fa lay fa lay fa lay dem dëgg la de. ndeysaan dama dégg. Ousin mun ma naam mu boobu xaw ma ko de. Ah. ñu ni ñu may wax ñu wax niveau bi mu ni mu bëggee. Samba Kourel loolu xam naa dara. ñu ni Ousseyn Ndiaye daal nee na comme Souleymane mi ngi ci fas yi. man mhm. naa xaar ba Souleymane ñëw. di nga ñëw. et que moo tax ndeysaan. Mhm. Euh, Ndefal 3 am na doom bu jigéen ma ne ko Ousseyn mun ma naa man ko tur bi yaa ko moom. mun ma kon tudde naa ko sama yaay. loolu dem lañ ciy waxtaan. macha allah xaytam la yaay gu baax la. ndeysaan mhm. waaw moom moom ku baax la moom mhm, mhm. parce que loolu ku la ko defal mhm. man mun naa wax ni supporter numéro un moom la non moom la ko gis dañuy déggante te moom na xam ne jàpp naa ko li ma ko jàppee nee naa ko looloy gor loolu mooy goor parce que moom li mu seexoon ak sama papa loolu la ko delloo ci gannaaw dëgg la macha allah man maa mën a nekk seede bi léegi damay ñaan tamit yàlla defal ma sutura sama diggante ak moom ba yéene bu mu am ci man def ko ci man yéene ma am ci moom ma def ko ci. loolu wax na ma ko wax dëgg fa yàlla loolu nga wax naa ko seede Ousseyn Ndiaye ku la wax bu ñuy wax benn supporter Samba Kolo Diop fidèle dañ mm-hmm. ko jàpp. non la war a mën a mel yaay Sali Kousa papa. beneen bi mm-hmm. comme li ma wax nii. Mm-hmm. sànq da koy wax mais tudd ñu tur. Mm-hmm. léegi ngay tudd tur da ngay wax Modou Thiam. mo cham nga wax euh, Papa ndjay Papa ndjay wax dëgg yàlla ñu ñëpp. am aussi nak ay supporters deuxième position. loolu noonu laa leen tudd. dëgg comme man. <laughs> supporters deuxième position c'est normal. mooy dañuy gis ben face mu mën daw. nga ñi dañuy far ci telle écurie. mais ñuy supporter face bi ni mën daw. donc ñooñu macha allah aussi. maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax aussi. dëgg la aussi man comme ni nga ko waxee ah di leen remercier bu baax baax baax si Ouzin Ndiaye depuis France Ouzin noonu la war a mën a mel ndax Salim mooy yaayam ma Ndiaye mooy papaam wax dëgg fa yàlla duñ tudd ñu tudd suñu grand bi nga xam ne ku wax gis gis Samba Kura Diop wax dëgg fa yàlla yeneen wax rek moo ngi noonu affaire rek la quoi As221 fa nekkoon wan leen lu ngeen bëgg na am tey Souleymane gis ngeen ko daan fexe daan fexe na ba gënal leen ko teg leen ko di leen ñaan ngeen ñaanal ko yàlla yéene gi mu am si élevage ak yéene gi si course yàlla defal ko ndam ndax xale la investi na macha allah beneen ba beneen écrit incha allah rabbi doon la bu yàgg Moussa la Amar Ba Demba ma jaama jaama jaama jaam way na baay mbar Moussa la Amar Ba Demba ma jaama jaama Moussa la Amar Ba Demba ma jaama jaama jaama jaama ma tëggoo ma tëggaaram gi sa mairie jëngandoo Fatick xamulaan sandir bu nun ngayet lo ndangaan basiir ngayet ndoo kebet meere fis makki ngayet ndoo nder géej fi salam nu nga tonto waat goolu këmbar bara ñaan bil fii ngayet ndoo del joob sanaak nga tokkoo a nder géej mystère nga tonto waa mbuur musaala yaa mar faa dem maa mbay ñaan na jaam na jaam na jaam na jaam Bye. ما يا ما يا ما يا ما تقول ey samba lu bees dans le milieu épique. les fi ñu toll jarul Demba France di commander ay vitamines voilà ay matériel d'équitation Manela ak planète animal seen jaaxle les na matériel bu leen soxla ci wàllu équitation vitamine dem leen planète animal Amna ay solution ci lépp lu jëm ci vitamine pour seeni mol bu war a wala wajan buy jàpp wajan buy nampal. fas bu amul énergie fas bu nek en entraînement Manela produit yu baax yu mucc ayib respecte normes internationaux yi lip am fi ci planète animal ay produits de subsistance naturel planète animal adressé mu Sacré Cœur 1 sorewul dara ak club football Dakar Sacré Cœur villa numéro 8289 B Dakar Sénégal Holal planète animal yemul foofu de day matériel d'équitation ay collier longe ba ci licol te xoolal moo xam muus xaj lëg ganaar ba ci xar ci soxla am na ci planète animal mailam nek animal planète sn arobase facebook ab di animal planète sn c'est numéro téléphone di 78 128 25 25 ak planète animal solution fils avec le